ngir waxtaan ak moom xanaa signal saan ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk internet yi nga xam ne ñoo ñu seetaan auzu billahi min seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdaalin bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu mbokki jullit yépp ak mbokki taalibe yi di jiital ci nuyu bi sëriñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak sëriñ Damat Mbàkke sama sëriñ ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey bi ñu ci sant yàlla bu baax a baax Eh, di nuyu waa Tawfekh Production bi nga xam ne tey jii déplacé wu ne ñëw fii ci Touba Yëmbal cité Comico seet si ñu ngeen am ak ñun aw waxtaan ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal te rafetlu bu baax seen taxawaay ak seen liggéey ci yaatal gi ngeen yaatal mm, liggéey nit ñu baax ñi. waaw sëñ Alsaan si la ab taalibe la boo xam ne. mi ngi dëkk Touba nekk ab taalibe boo xam ne dafay yëngu ci li yàlla bëgg ak rasulilah sallallahu alayhi ak sëriñ Touba Xaadim rasul mi nga xam ne mooy sunu sëriñ di di ci yëngu nag ñaari côté yépp ndax daf ci am loo xam ne euh, day mbir mu nekk ci ñun ñu doon ko suñuy maam mu wàcc suñuy baay baax ci ñun am ci mbir moo xam ne it ginnaaw bi ñu jaaree fi ñu war a jaar xam lu ñu war a xam ba noppi dañoo daal di suubu nag ki yoon wi gaa yi baax yi sóobu woon dem wuti ko ba am ko ba am ndigalul toog di yaraate ak di ko xam xamle ñu doo ko ñëw toog nag di yaraate ak di ko xam le ko kon daal signal san silla boo ko déggee boo ko déggee daal bëgg koo xam xamal ne moom ab taalibe la boo xam ne ma nga dëkk Touba bokk ci waa saate googu nga xam ne saate gi nekk ci ko côté Ngaabu sama maam sanc ko di sëriñ ma Massoo gisil la nekkoon ku ràññiku ci yoonu murit nekkoon ku Serigne Touba fonkoon daan jaxasoog moom lu bare bare bare bare bari Euh, loolu nag euh, foofu daal la Serigne Alassane Sylla saate bokk waaw kooku daal mooy Serigne Alassane Sylla ñu gis ne yaa ngi def liggéey bu am solo ci ndaw ñi rawatina taalibe yi nga xam ne dañoo jokk ci yow ngir di dem xamal yàlla suñu borom man lañ ko war a toppee mu nekk loo xam ne lu tumburanke la jamono ji ci ab sëy waaw loolu moom daanaka sax dañ ci sawar a tontu bu baax a baax ndax fi àddina toll ci ab lëndëmbaay àdduna toll fi ci ay jafe-jafe ak yi xat-xat dafay baax ñi sunu borom subhaanahu wa taala nekk ci ñoom kiiraay yépp dañ ci ñoom ñu mën a janloo ak lépp la xewoon démb ak lépp lu xew tey ak lépp luy xew ëllëg da yàlla ci ñoom ñoom it ñu am taxawaay bu nu am ci ñi nga xamante ni bii ay ndaw lañ ak ñi nga xamante ni bii sax ay mag lañ te liñ waroon def ci seen ndaw raw leen ci seenu mag loolu moo waral bi nga xam ne jaar nañ fi ñu jaar ba noppi ginnaaw bi ñu jàngee alxuraan jàngam téere xam-xam yi nga xam war nañ koo jàng ba noppi ci nga xamante ni bii li ñu war a xam ci diine daal xam nañ ko noppi ah ñu gis ci suñu mbindum sëriñ mu soññee bu baax ci xam yàlla ak wuti ko ak foo ko mën a amee ñu gis ittihaad bi ci sëriñ bi def moo taxoon ñu nit ñu dem wuti ko ba ñu ko wutee ba am ko it am ndigalul maanaam toog def ko ci ñi nga xam ne ay taalibe lañ yoo xam ne yàlla daf ñoo boole ak ñoom ñu yaakaar ñu topp ci suñu ginnaaw ngir maanaam ñu teet leen ci yoon wi nga xam ne moom lañ nekk te muy yoonu Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul ak képp koo xam ne sax ajuwut ci yoon wi waaye bëgg na ko ko dimbali ci diggante moom ak boroomam bu agsee danañ ko dimbali ci diggante moom ak boroomam subhaanahu wa taala danañ xool tolluwaayam bi mu am fiir ru am tollu ci diggante moom ak boroomam ñu xamit la ru am laaj ci diggante moom ak boroomam ñu tegal ko maanaam li nga xamante ne bi mooy sart yi nga xam moo fi nekk sart yooyu su ko nangoo dund rek ñu ànd ak moom ci liggéey boobu noonu tarbiyee ko tarxiyee ko tasfiyee ko ba li nga xamante ne bii xamoon na ko démbam te fàtte ko mu mën koo xamaat tey addinaa mën a yéwén àllaaxira mën a yéwén loolu moo nekkoon li nga xamante ne bii mm, yàlla dimbalee nañu ba lu baree baree baree bare ci ay nit ñu ngi leen ciy tàggat lu baree baree baree baree bare day ci ay ci ay ci ay ndaw ñu ngi leen ciy tàggat bu baax a baax a baax te boo xoolee sax daanaka ñi ëpp ci li ñuy tàggat mm, ñu jafee tàggat lañ ndax li ëpp si ñun ci li ñuy tarbiyee ci ay nit soo xoolee ay takk der la ñuy doon wala ay étudiant wala yu demee noonu Euh, te it yëmut ci biir réew mi ndax danañ dem fu baree bari ci yeneen réew yi euh, di fa di fa di fa tàggat ay nit ci seen diggante ak seen borom di leen ci taxaw bu baax a baax a baax ba noppi euh, di leen di leen di leen dimbali daal ci yu baree baree bari. waaw nga xam ne kon fi jamono toll ci ak lëndëmaay yi toll fi ci xataay ba pare ñu bari réere seen borom ngir ñàkk am ñu leen ca teg tax maanaam loolu tubaanke ñun nag ñu fas ne cee liggéeyal yàlla suñu borom subhanahu wa taala comme nu ci suñu sëriñ nekkoon si Ahmad Bamba ndax boo xoolee si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul bi nga xamee ne keroog ndigal li ñëw na ci moom ngir mu yar ay taalibeem jëmale leen ci seen borom ak tàggal leen ci seen borom keroog nga dégg mu waxoon ne saafahani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bi daar si kon loolu ñëpp jàng nañ ko sëriñ bi ko loolu nag la sëriñ bi doon ci mooy bëggulu leen yàlla seen borom subhanahu wa taala bëgg la leen rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak nangoo liggéey ngir mën a tedd àddina mën a tedd alaxira te loolu mooy li nga xam ne moo tax yàlla indi ñu ci ko suuf wa maa xalaqtul insa wal jinna ilaa liya'buduun wa maa xalaqtul jinna wal insa ilaa liya'buduun suñ borom bindu jinni ak lu dul ñu xam ko maanaam jaamu yàlla bala nga koo def da ngay xam naka nga koy jaamu ndax suñu borom boo xamul naka nga koy jaamoo soo ko jaamoo jaamu kooku dootul am solo mooy li nga dégg ñëw di ko wax nit ki dana dana jëf ay jëfam ba pare jëfum jooju ko jariñ dara wa xadimna ila ma xamilu min amalin fajalna habaan mansura nit ki bala moo jaamu suñu borom daa war a xam naka la ñuy jaamoo yàlla mooy tax boo jaamoo sa borom sa borom nangul la jaamu googu noonu looloo tax nag maanaam ñuy tàggat nit ñi ci seen diggante ak seen borom di leen di leen xamal maarifatu billaahi bu set wecci comme ni ko góor yàlla yi doon xamlee te lépp maanaam nekk lu leer nañ ndax dafa bari dafa bari ñu koy ñu koy woote woo ak ñu koy ñu koy xamle te boo xoolee ba ci biir biir day wute ak dëgg dëgg dëgg dëgg nañ ko war a xamle ak nañ nañ ko war a joxee ndaw ñi looloo tax nag ñun nga xam ni fi nu féete ñu koy bàyyi suñu waar bu baax a baax nga xam ne képp koo xam ne ànd nga ak ñun àndewuñ ak nit àndewuñ ak yow maanaam àddina dañuy àndi ak yow maanaam yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mooy xam-xam bi nekk ci ñun lañu ko def ci yow ba nga gindiku ci sa diggante ak sa borom ba dara dootu la jaaxal kii daay yëpp mu ni ko ci yow nga mën a gis nga mën a gis li la mën a xam tey mën a xam ëllëg loolu moo nekkoon li nga xamante ni bii ñun ci lañ nekk di ci di ci bàyyi suñu waar bu baax a baax baax te ñu ngi ciy sant yàlla ñu ngi ciy sant yàlla suñu borom bu baax a baax baax waaw ndax euh, yàlla mi ñu ci dimbali ba taalibe yi ñu am ñu ñu jokk ci ñun ñu ànd ak ñoom ci liggéey boobu noonu moom xam naa ni koo ci dajaloon am na ci ñoo xam ne jànguñ benn araf ci alxuraan maanaam amuñ benn araf bu jàng ci alxuraan waaye bu ñu toogee yow di waxtaan ak yow yow mi jàng da nga da nga leen nangul te da nga leen nangoo topp sax ñoom ñooñu ndax maanaam ni ni nga xam ne ñu ngi leen koy tarbiya euh, di leen ko tarixiya di leen ko tasfiya hmm. léegi lu mel ne tamit lu jëm ci wàllum ñaan gi mel na ni tamit yaa ngi ci yëngu bu baax di ci dimbali ay nit ñu bari ñoo xam ne sax duñ say taalibe hmm. waaw xam nga wàllu ñaan ñun ci loolu lañ juddoo ndax sëñ ma soogi si la saate maanaam yaakaar naa partout dans le monde ñëpp xam nañ ko maanaam ñun moom ñëpp xam nañ fi ñu bokk ñooy ñan ak lan la yàlla def ci ñoom ci mbiru baatin dafa yàgg ci ñun nga xam ne xale bu ndaw bi ci bi nga xamante ni bii maanaam dafa toll ci xeeti jàng dox yooyu sax dina am lu yàlla def ci moom maanaam yàgg ngaa dégg sa ñaan ku sant si la jaan du ko màtt ndax ñun fële suñ dëkk bee nga xam ne fa lañ cosaanoo muy saatee am na guy gu fa nekk goo xam ne boo xawee dëgër buñ ñu la fa yóbbu soo ko wëree maanaam jaan dootu la màtt yooyu yëpp di xeeti xam-xam yoo xam ne euh, cosaan la ca sa ca dëkk ba euh, loolu nag sunu sunu maama ko yoroon doon ko dund doon ko doon ko dundal mooy maanaam di ci dimbale ay nit fu nekk lu ne def na ko ci it loolu di wàcc suñuy bàyyi baax ci ñun nii ñu doon na ko mu nekk suñu biir deret nga xam ne yàlla suñu borom mii dara tawul defal nañu ci ay xeeti taxsis yoo xam ne ay xusuusiyaat yoo xam ne mënees sa toog sax ci ay médias yi du ko wax maanaam ku ko bëgg xam faaw day jëflante ak ndax jamono moo toll foofu maanaam jamono fi mu toll daa toll foo xam ne lu neex waaye mu woote lu neex waaye mu wax waaye nit ñi kenn moomu leen képp koo xam ne yëkkati ku ne ñëw ci yow bu jëflante ak yow dina xam ba xam waaja nga wala doo waaja daanaka kon soo xoolee euh, yu bari dee su jël di di di ko di ko partager di ko wax ak yu demee noonu waaye képp koo xam ne képp koo xam ne maanaam euh, ñëw na ba agsi rek ci barab bi dana xam maanaam. Euh, dana xam dana xam maanaam barab bi lan moo fi nekk ndax barab la boo xam ne euh, rafet nañ njort ni képp ku fi tàbbi sa aju dana faju te maanaam lépp ci nit ñi euh, dañuy da maanaam dañoo dañoo sonn dañoo jaaxle ba xamatuñ fenn fuñ jëm maanaam ndax ku jug rek woote ni ab sëriñ laa damay def lii damay def laa damay def laa damay def laa te bari na ñoo xam ne yenn saa yi sax ñuy indi ma fi ay xeeti xaatim yoo xam ne nit day dem ci ab sëriñ mu ñaanal ko bindal ko ay xaatim lu nekk kooku ñëw indil ma ko ne ma lii kat damaa demoon barab sàngam ñu joxoon ma ko ma ne woon naa ko indi na nga xoolal ma ko wala ma koo jëfandikoo waaye man su ma xoolee xaatim bi sax sama yaram day daw ndax xaatim bi damm gi muy damm nga xam ne nit ki bu ko sangoo woon tey mën na koo indil xeeti gàllankoor boo xam ne du xam sax maanaam lan ma ko ko yóbbee fekk xaatim bi mu sangoo wala bi mu tàkk moo koy defal ndax sëriñ bi nga xam ne dafa wootee ne moo ab sëriñ la moom war naa jàng ba mën a xàmmee maanaam xaatim bu damm ak xaatim bu dammuwul mën a jëflante ak rawxaan yi ak xudaam yépp mu mën a jëflante ak bu nit ki ñëwee ci moom moom mu mën a xam fële buruuju nit ki xam fële nit ki maanaam bidiwu nit ki mu mën koo xam xam ban heure la bidiwam di fekk xam ban heure la bidiwam di génn xam yan xaatim moo correspondoo ak ay rawxaanam xam tabiaam xam tabiaa nit ki maanaam nga xam nit ki fu mu bokk tabiaam fan la ngir nga mën koo ñaanal waaye maanaam yow yooyu ci yow sëriñ bi mu leeral ne kii di ñëw ci yow xamoo dara ci moom amul benn xam-xam boo am ci moom nga bind ab xaatim boo xam ne dañ la ko joxoon nga dem photocopier ko rek ñëw teg bu kii ñëwee nga jox ko ko mu jël ko takk ko mën naa génn fi def accident yoo xamante ni bii maanaam du xam lu ko yóbbu fekk lim takk moo ko yóbbee wala mu nekkoon ci entreprise wala dara sax ñu dàq ko wala mu doon déposé ay kayit dem du ko am yooyu yëpp lu koy indi yu mel noonu moo koy indi moo tax ñu nit euh, loolu ñu ci ñu ci ñu ciy bàyyi suñu waar bu baax baax baax di ci dimbali nit ñi te yàlla rek tax ndax maanaam mm, yàlla suñu borom dafa bëgg kuy dimbali jaamam ñi yàlla lépp loo koy defal da koy jaare ci jaamam ñi mën koo mën koo defal li yàlla def mm, ci sunuy maam mu jaar ci sunuy baay ñëw ci ñun dafa yàlla it nit ñi xam ko ndax afa bi haasal hadis yi antum mudhinun waaye wa tajaaluna risqakum annakum tukasibun suñ borom lim lay defal dafa wax ne ndax loolu dayut ngeen koy waxtaanee ndax loolu dayut ngeen di ko waxtaanee waaye suñ borom dafa wax ne defal la dara ba pare waxtaanee woo ko wa tajaaluna risqakum annakum tukasibuna yàlla nee na maa ngi lay defal wërsëg ba pare nga lànk bañ koo bañ koo tudd loolu nag mooy mooy. yàlla defal la teraanga yàlla defal la xam-xam yàlla defal la xikma defal la lu nekk nga toog rek bañ koo bañ koo béril bañ cee dimbali nit ñi loolu day dugg ci aaya boobu noonu kon loolu moom moom yaakaar naa yaatu na moom boo nee Sylla rek ñëpp xam nañ ko ñun xamuñu lenn lu ñun ñaan ci la géntee ci la defee lépp waaw. si biir réew a xam ne nga xam